la question foncière dafa am lu ma ci xaw a euh, jaaxal parce que dañu jël fourchette. Mhm. pour saytu. Mhm. on a parlé de de de de de deux mille vingt à deux mille vingt quatre. Mhm. maintenant ma question c'est pourquoi deux mille vingt ba deux mille vingt quatre pourquoi pas deux mille douze ba deux mille vingt quatre. parce que sooy def benn affaire c'est parce que am na peut-être benn lu tax nga koy def maintenant nous devons avoir des explications sur cette fourchette là. et pourquoi pas 2012 parce que beaucoup de choses se sont passées. Mmh. Les attributions au niveau de, du littoral se sont passées en N'est-ce pas? Ou bien dans, dans cette fourchette 2012-2020. Beaucoup d'attributions se sont passées ici au niveau de la corniche ni ñu fàttaliku euh, Barthélémy Diaz ba mu fi duggee ci biir corniche bi commencé di wane ay mbir. Mhm. donc au niveau des des des de, de, des attribution yi ça a commencé de 2012 ba ba ba 2024. Mhm. donc pourquoi le président de la République Bassirou Diomaye s'est à de 2020 à 2024. Mhm. est-ce que il y a pas quelque chose qu'on est de cacher aux Sénégalais. parce que aussi ñun ñëpp xam nañ ne l'attribution des terres ça se passe au niveau des des municipalités certes mais au niveau des impôts et domaines. Mhm. la direction des domaines a un travail colossal bi nga xam ne moom ciy def. Mhm. donc dans les enquêtes que les gens sont en train de mener on s'est on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont acquis des terres au niveau des filao ñi nga xam ne dañu far ak ñoom. y a un ministre on dit que y a un ministre de la République boo xamante ne am na ci am na quota on nous parle d'un directeur général boo xamante ne am na ci quota on nous parle des gens de la des mouvements de la société civile ñoo xamante ne am nañ ci quota donc c'est des questions qu'on doit se poser pourquoi cette fourchette de à 2024 pourquoi a entre 2020 à 2024 voilà pour pourquoi cette fourchette de 2020 à 2024 qu'est-ce qu'il y a entre 2012 et 2020 sur la question foncière parce que aussi bu ñu fàtte ni ñi ñuy jiite. bu ñu bu ñu audité la ñu audité daal. voilà su ñuy audité la ñu audité la euh, toute la toute la toute la mandature. toute la mm-hmm. magistrature du président. du président Macky Sall bu ñu fàtte nous avons des inspecteurs des domaines. ñoo nekk ñoo nekk ci kaw ñoo nekk ñoo jiite réew mi. et dans la déclaration de patrimoine pas officielle le président de la République Bassirou Diomaye Faye a acquis sa maison en 2017 ses terres son terrain. Mm-hmm. donc su ñu nee fourchette deux mille vingt deux mille vingt donc fourchette boobu génn na ci. am na ñeneen ñoo xamante ne génn nañ ci fourchette boobu maintenant lan la ñuy nëbb ci fourchette deux mille douze deux mille vingt. lundi incha allah loolu la ñuy donc il faut que les gens posent cette question là pour savoir xam ni sénégalais yi peut-être. ñi ngi réfléchir par rapport à cette situation lan la ñuy nëbb ci littoral bi ci fourchette 2012 ba 2020 moom la ñu waxtaanee lundi incha